jaa ngeen jëfati mbokk yi seetaan déglu seen cabinet bio Rahma muy cabinet boo xam ni day defar ay produits bio di ko distribuer ci réew mi ak bitim réew ngir may ku ci nekk foo nekk nga daal di ko mën am ci anam yu selto te mbokk li ngay seetaan moom la ñuy wax savon rapido muy saabu boo xam ni lépp loo xam ni dafay jëm ci wàllu tache ci yaram daf koy raxas ba mu set moo xam kanam gi moo xam yaram bi moo tax ñu indil leen trois formats. bu ndaw bi visage bi beneen bu yam bi corps bi ak beneen bu mag bi peau bi kon yow mi seetaan ak déglu boo amoon ay cere yu yàgg lool wala ay picc yu nekk ci kanam wala ay taasu chronique nga jaaxle lool ba xamoo ban yoon ngay jaar ban mbir mi daal di saafaru seen cabinet biorahma indi ne la saabu ak ne moo ci gën gaaw taasu cere moo ci gën a gaaw taas bu yàgg chronique moo ci gën a gaaw ay lonet moo nga ci gën a gaaw ay rit moo ci gën a gaaw ay pli yoo xam ni day feeñ ci der moo ci gën a gaaw ndax saabu bi dafa di saabu bu 100 pour cent bio kon yow miy jàmbat tache yow miy jàmbat yaram wala kanam gu xaw a lëndëm ak savon bi muy cent pour cent bio Rahma rapido bi dafay gaaw am nañ ci format bi ngay gis am nañ ci beneen format am nañ ci beneen format muy saab boo xam ne bu dee yaa ngi Mauritanie te di ñu bàyyi xel am nañ fa ndaw guñ fa toogal nga mën ko am su dee yaa ngi Thiès mën nga ko am bu dee yaa ngi Mbour mën nga ko am su dee yaa nga lugaloo mën nga ko am su dee yaa ngi ci yeneen i dëkk tamit sori ak jot naa ci bu pos yëf yi mën naa gaaw te wóor ak horaire yi ñëw ci dëkk yi ak tamit ci yeneen diwaan fu mel ni Daaru Musti wala Touba mën nga ko daal di am kon yow mi seetaan déglu di jàmbat ay tâche saafara baa ngi noonu am ay pli ci kanam saafara baa ngi noonu am cere yu chronique saafara baa ngi moom am nañu saabu bu ñuy sëlmoo saabu koor ak beneen format jaa ngeen jëf woote leen ci numéro boobu ngeen